mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak eh, jàmm ci seen chaîne bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a fiy toppee la nga xam ne moo di xibaar la le 17 novembre bi nga xam ne jamono ji nag waa Pastef ñu ngi koy daal di waajal mu nekk itam mbir moo xam ne jamono ji nag daan nay bëri coow lool ñi nga xam ne rek ñoo bokkee ca fa jamono ji nag saa bu nekk rek ñu ngay àddu di wax ca mbir mu nu mel ki nga xam ne rek moo di nga Ngagne ba Touré moom nag saabu bu nekk rek mu nga yëkkati yëkkati ay kàddu di wax ci li nga xam ne rek moo di le 17 novembre bi nga xam ne jamono ji nag ñoo ngi koy daal di waajal ngir rek sensibiliser ñi nga xam ne rek ñoo di Sénégal yi ngir rek euh, ñu waajal euh, bis boobee ndax kat euh, ñu mën a xeex la nga xam ne rek moo di seen àq ak yelleef jëm ci réew mi di Sénégal ñu mën a am la nga xam ne rek moo di seen liberté ak itam ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono ji nag dañ ko tëj ci biir kaso bi ñu mën a xeex ba mu génn ci li nga xam ne rek euh, moo di ci biir euh, kaso bi euh, delluwaat fa nga xam ne rek moo di ci ak njabootam waaye itam jiite li nga xam ne moo di réew mi di Sénégal ginnaaw bëgg-bëgg ba nga xam ne jamono ji Sénégal yu bëree bëri dañu ko daal di bëgg mu di rek Ousmane Sonko nekk nekk président 2024 loolu nag nekk loo xam ne jamono ji Sénégal yu bëree bëri góor ak jigéen mag ak ndaw daan nañuy taxaw temm ne Ousmane Sonko dafay nekk président ci réew mi di Sénégal waaye itam am suñu nga xam ne jamono ji nag ña ngay sikki sàkk ne Ousmane Sonko dafay bokk wala du bokk ndax kat Ousmane Sonko nag la ko teg rek jamono ji moo tax nag yenn ci sénégalais yi nag amatuñ yaakaar ca ka nga xam ne rek euh, moo di Ousmane Sonko waaye itam amatuñ yaakaar benn yoon ci réew mi di Sénégal waaye nag ñi nga xam ne rek ñoo bokk ca Pastef ñoom nag jamono ji nag daan nañuy amal la nga xam ne rek moo di seen woote le 17 novembre ngir rek sénégalais yëpp génn wane seen bopp waaye waaye itam xeex jëm ci li nga xam ne rek euh, moo di seen euh, bëgg-bëgg ñu wax ci leneen mu di rek euh, Mame Mbaye mi nga xam ne jamono ji nag ñu ëpp ci Sénégal yi daan nañ koy ràññee xàmmee lool moom Mame Mbaye Niang ginnaaw émission ba nga xam ne rek da ko amal ni ki démb foofee nga xam ne moo di ca mu rek faram fàcce mu janoo ci ak ka nga xam ne rek moo di Pape Ngagne moom Mame Mbaye Niang daan na yëkkati ay kàddu ñëwaat ci la nga xam ne rek daan na koy def mu di rek plainte ba nga xam ne da koo déposé contre ñi nga xam ne rek ñoo waxoon ca mbiram moomee nag daat koy jiñ la nga xam ne rek moo di wàllum viol mu di rek viol boo xam ne nag dafa doy waar lool jëm ca kawam moom Mame Mbaye Niang tax rek mu porte plainte ñooña nga xam ne rek ñoo waxoon ca loolee ñi nga xam ne ñoo di waa Allô Sénégal ak itam ñi nga xam ne rek ñoo ay site internet yoo xam ne rek ñoo waxoon ca mbir moomee di wax ne rek Mame Mbaye Niang dafa daal di tëddee rek jabaram itam ma Mbaye Niang di wax ne rek ñooña nga xam ne rek ñoo wax mbir moomee nag amul benn yoon moom nag tax mu porte jàppalante ñooña nga xam ne rek ñoo wax ca euh, mbir moomee di ko euh, jiiñ la nga xam ne rek moo di viol Mame Mbaye di wax ne rek moom yàgg naa jéggale jëm ci li nga xam ne rek ña ngi koy tuumaal saa bu nekk rek di ko waxal waaye nag euh, tey jii moom mënul jéggal kenn ndax kat moom lañu ko waxal nekk na mbir moo xam ne dafa rëy lool waaye itam laal ñi nga xam ne rek ñoo di ay famem ndax kat dañoo wax ne ki nga xam ne rek moo di ab rakku jabaram la daal di tëddee mu nekk mbir moo xam ne nag dafa daal di doy waar lool lool nag tax ka nga xam ne rek moo di Mame Mbaye Niang nanguwul dellu benn yoon ginnaaw eh, jëm ci li nga xam ne rek moo di plainte boobe eh, ñi nga xam ne rek ñoo di waa Allô Sénégal def nañ émission sax di jéggalu ka nga xam ne rek moo di Mame Mbaye Niang la ñu ko waxal waaye itam nanguwul benn yoon jéggal leen ca mbir moomee ba ñi nga xam ne sax ñoo di journaliste yooyu nga xam ne rek ñoom lañu teg loxo ca mbir moomee jamono ji daal nañ leen di déféré ci mbirum Mame Mbaye Niang la ñuy desani ba tey moom nag Mame Mbaye Niang ginnaaw loolee daan na yëkkati ay kàddu ñëwaat ci dossier ba nga xam ne rek moo doxoon ak nga xam ne eh, moo di Ousmane Sonko njiital Pastef di wax ca mbir moome di wax ni rek ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko nag moom nag nekk na koo xam ne matul njiit benn yoon ndax koo xam ne rek dafa daal di tuumaal as gor di wax loo xam ne wóoru ko benn yoon kooke ku nekk xam ne ne mënul jiite ay nit koo xam ne rek dafay daal di toog di wax loo xam ne wóoru ko benn yoon kon nag kookee nga xam ne rek dañ ko bëgg jiital nag ak képp koo xam ne rek da ngaa bëgg ànd ak moom ci ay caaxaan da ànd ak moom ci ak naa fekk àndoo ak moom ci dëgg loolu nag nga xam ne rek moo di mambay Mbaye Niang moo ko daal di xamle di wax ne Ousmane Sonko moomee nag nekk na koo xam ne matul njiit benn yoon ñu jeexale ko ak coowal Pape Ndiaye mi nga xam ne jamono ji nag moo lëmbee li nga xam ne rek moo di internet bi ginnaaw kàddu ya nga xam ne rek du ko yëkkati nag mu nekk kàddu yoo xam ne nag daa bett ñu bëri ci askan wi ñi nga xam ne rek ñoo ko daa teewlu di teewlu ay ji nag ñooñee nag daan nañuy lànk ba ñu ànd ak moom ca kaddu ya nga xam ne rek doo ko daal di yëkkati moom Pape Ndiaye ginnaaw loolee nag ku nekk rek yaa nga yëkkati say kaddu di ko jëmee ca waxi Pape Ndiaye jooje mu nekk itam loo xam ne dafa jaaxal ñu bëree bëri ka nga xam ne rek moo di Serigne Ibrahima Darame moom nag yëkkati na ay kàddu fa nga xam ne rek moo di ca ASID TV di wax ne ki nga xam ne rek moo di Pape Ndiaye nag wax ji nag daf ko daal di bett lool ndax kat séntuwul benn yoon ka nga xam ne rek euh, moo di Pape Ndiaye di wax kàddu yu ni mel mu nekk loo xam ne ka nga xam ne rek moo di dara Dramé nag ma ngi cay wax di wax ne ka nga xam ne rek moo di. Pape Ndiaye moomee nag na xool jamono ja nga xam ne dafa nekk ci ay tolof tolof nag ñi nga xam ne ñoo di Sénégal yi nag taxaw temm di ko jàppale ba mu génn ci li nga xam ne ca la nekk waaye nag tey jii bu ñëwee nag di doxee neneen day mel ni nag ak soppeeku day bëgg a am ci ay mbiram wala mbokk yi ñu jeexalee xibaar yi foofee nag tàggatoo beneen incha allah ci yeneen i xibaar.